di leen xamal ni dégg naa la ngeen wax te sàkk ko ci ndimbal incha allah daañu def programme boo xam ne fii ak déwén dana def alal ju bare bare ci wàllu pêche ak transformation des produits halieutiques ginnaaw bu ma nuyoo suñu mbokk mool yi xam naa waa Yoff wax dëgg yàlla yéene lañu am ndax <laughs> nee nañu ma ñu ngi xëyee yoof tey ci gaal gi ñëw ba pootu waa Gendar noonu waa Kayaar noonu waa Mbuur waa Jowaal ba Kafountine yéen ñëpp laa bëgg a wax ni jëloon nañu juróomi milliard pour subventionner 5000 moteurs Voilà, vous premier ministre budget 2018 Inch'Allah. allah New subvention 10 milliards de francs CFA en 2018 et 5 milliards en 2019 pour couvrir les 20 000 pirogues du Sénégal afin que pirogue bu ne meuna am subvention ci moteur Nous dinañu aussi mottali euh, liguey avec société bi yor walu gal yu bees yi nga xam en fibre de verre pour yok sécurité ak condition yi ngeen di pour ba nga ces pirogues de verre dañ ko mun liguey ci Sénégal man len jàppale aussi si ngeen jot ko ci anam yu gëna a yomb daañu liggéey aussi pour que camion frigorifique yi ngeen mën si jot déjà am na yu war a ñëw lim bu njëkk li ñu def ak coopération indienne waaye gouvernement bi dina liggéey premier ministre ak ministre de la pêche pour que association yi ñu ko Samba Gueye waxee ñu jàppale leen si ngeen acquérir des camions jàpp naa ne am na ñaari opérateurs yu fi nekk waa CCBM ak waa Kamaz je crois ah ñu ngi liggéey dinañu mën a xool leen di yombalalee accès aux camions frigorifiques jigéen ñi tam ci wàllu transformation dañu def ligne de crédit boo xam en relation avec le fonds FONGIP danañ leen jox foo leen di lebee Euh, xaalis bu gën a takku te mu nekk ci anam yu yomb ngir ngeen mën a continuer seen liggéey transformation wax ngeen waxu yoon bi jóge pootu ñëw ba ci tefes gi loolu aussi daañ ko def bu ci yàllaandee fii ak déwénoo plus tard pour que quai de bi ak tefes gi ñu mën koo relier ak tali bi ngir yombal seen liggéey de façon générale jàpp naa ne réew mi suñu bëggee mu dem kanam faaw ñu gën yaatal en tant que président de la république nag ki nga xam ne mooy définir politique u lima mi li ma jiital ginnaaw bu ñu waree liggéey ndax liggéey mooy lii tax ñu am alal ji ñu joxewaat moy ñu fexé ba secteur yeb, gis sen bopp ci ni nga xam ne noonu lay réew mi doxee looloo waral li ñu def ci mbéy mi ñu def ko ci mbéy mi li ñu def ci càmm gi ñu def ko ci wàllu élevage mais aussi pêche ñu jox ko àqam ak mboolem secteur yu mel secteur de l'artisanat secteur de l'aquaculture les femmes les jeunes bref loolu mooy li nga xam ne moo nar a feeñ ci budget yi ñu fas yéene jëm ginnaaw bu ñu defee lu bare bare ci infrastructure yi donc war nañ ñëwaat ci askan wi jàppalewaat askan wi ci taxawaayam ak ci nu muy mën a liggéeyee